parce que 88 ñu bëri ay xale lañu ñiy juddooguñu ñiy seetaan mu nekk bés bu mag jamono ji euh, Jeux olympiques yu Tokyo yooyu am na mais bu njëkk ba télévision amuloon danoo bëgg nga dellu siwaat ci journée boobu ci suba si ba tëdd bi bi nga jëlee médaille bi noo ko préparé journée boobu nett li ñu daal. waaw préparer naa ko nu ma ko war ne préparé parce que dañu amoon ay dirigeants yoo xam ne ku ma ni Lamine Diack. vraiment. jàppale na ma si lu bari. ndax euh, maanaam même si ay ay waxam. dama daan ñëw gagné champion d'Afrique. ñëw si moom ne ko ah président kontaan na gagné naa mënuma gagné woo dara. fii dafa woo fi dara. waaw may entraîner. di gagné ay meeting. di gagné lu nekk su ma ñëwee mais président vraiment kontaanul si si li may def ma ne mais président moom lan la bëgg nag. ah ma gën a góorgóorlu mais. tamit euh, président Abdou Diouf jàppale ma bi may dem États-Unis tamit. Mm-hmm. ancien ministre Ablaye Matar Diop tamit jàppale ma. Mm-hmm. mais sewul bi ma fa nekkee ma dajeex un dirigent Kéba Mbaye mu nekk un grand homme. woo ma ñu daje foofu mu junj ma ay wax yoo xam ni. Mm-hmm. ah wax yooyu suñ ko waxee nit rek. da lay da ngay démultiplier wu. Ah. wax sa réew. nit ñi nit ñi nit ñi nit ñi nit ñi amee yaakaar si yow. yooyu ñu toog. Lamine Diack toog Kéba mbay toog Ablaye Matar Diop toog Thiam Papa Gallo Thiam toog c'est des grands dirigeants ñooñu nga xam ne dañuy diriger sport ak délégation Sénégal vraiment ñëpp amoon yaakaar si man moo tax euh, ma ne tamit entraîné na pandant huit ans bii mooy sama dernière chance mooy élève bu jàng def de war a def bag xam nga du war ko rate wala def doctorat wala war ko raté mhm. ma ni bi daal war ma ko raté daal mhm. waaw wax yi ma dégg ak ñëpp daal mais fii daal te je faisais partie des cinq meilleurs du monde mhm. ñëpp ñoo ah yemoon doole ah ñoo yemoon doole mais série ma gagné sama série demi final ma jël deuxième si veille bi euh, sama entraîneur Fernand Utubis benn français ñëw daan ma am nga couloir cinq xam nga couloir yi daf day joué ah, mu ne ma am nga couloir ah. cinq mhm. mu ne ko coach damay dema am suba dina am médaille mhm. mu ne ma Amadou va dormir moom ñu commencé lox tiit <laughs> mhm. coach mu ne ma va dormir ma ne ko non mais coach suba il faut que ma am médaille après ñu entraîné bu baax noppalu ko ak sama naataanko yi Moussa Fall bi doon def huit cent ñoo bokk nekk Babacar Niang Boubacar Aïssatou Tandia vraiment délégation Sénégal bu baax parce que deux jours avant di ñu fête woon sama anniversaire le 22 septembre. Ah, ah. ñoom ah, ñëpp <laughs> ñu ñaanal ma waaw le 22 septembre ñoom ñaanal ma. pour ma gagner am médaille donc euh, bon le lendemain bon nga xam ne huit yi gagné rek ñoo nekk di échauffé ak seen entraîneur. Mm-hmm. ma commencé entraîner échauffement def première air sama entraîneur deuxième air mu jël temps. su ma ñëwee laaj ko mais koo lan laa def mu ne ma noonu demal rek. mais moom fi mu nekk moom tiitoon na parce que yi moo doon def dafa def ne dama juum. parce que temps yi maa ngi nekkoon si forme. mais comme que ñun sur 400 mètres et bi dafa am technique da ngay daw 13 foulées. ba ma dama daan def 13 foulées balaa 8 terminé en 14. mu ne ma non bu dee risque dafa 13 ba ba balaa balaa à la 7. wante ma ne ko coach mais jox ma samay temps rek ma xool entre temps mënu ma non non du ma la jox dara parce que moom fi mu nekk yaakaar woon ne temps yi ma doon def si échauffement bi mun ma ko def mais temps yooyu jàppoon naa ko ah <laughs> léegi bon départ tàmmoon naa stress bi tàmmoon naa ko parce que pendant des années ngay daw di nga am di nga mën a maîtriser sa stress yooyu yëpp donc ba jour bi lenn rek lañ daan xaar coup de pistolet bi dem uh-huh. nga dem quoi mais sa dernière chose donc rek moo nekkoon sama bopp. sa dernière chose xawoo tiit xawoo paniqué. non non ma parce que en un certain niveau. Euh, parce que yàgg naa am stress boobu. yaa maa ngi daan tiit bi ma doon door commencé mais après parce que ñooñu. ñi ma doon daaw ñëpp xamoon naa leen. parce que kenn rek moo si amoon euh, palmarès boo xam ne muy Edith Moses. yëpp ah, yaakaaroon ne moom mooy gagné moom troisième la mujjee jël sax. Mm-hmm. américain la waaw américain la donc ah. euh, bi ma dawee nag def euh, li ma sama entraîneur wax dama ralentir à la septième et. pour mën a def en quatorze. mais mënoon na dem treize à vitesse bi ma woon donc c' est beaucoup plus technique loolu tax ma ñëwaat. à la ah, fin waaw ma ñëwaat parce que dama ralentiroon daal di ñëwaat donc. Mm-hmm. Euh, ñi ngi wax su ma yóbboon. mais mais tamit deuxième bi daal comme. Mm-hmm. médaille la donc ah daal euh, donc loolu la donc euh, vraiment.